sëñ Ba may ma ma ak euh, suma tour de table bala may euh, fàtte malal. affaire bi du de politique meeting la meeting c'est-à-dire <laughs> meeting parce que il s'agit d'un meeting parce que tout simplement c'est les sympathisants et les militants du parti mm-hmm. qui sont mobilisés avec le contribuable sénégalais Nous neexal leen fay ay bus nous déplacer leen am na sax ñuy jóge ba pour faire des benn un événement politique bu à donc nous qui habitons les quartiers populaires nous tout le temps et les gens sont mobilisés à coup de 2500 pratique ça va ça va faire de la rupture parce que quand même rupture nous ñu Macky jaay ci ci campagne mm-hmm. en 2012 ñu york ni ndaw la après indépendance la mm-hmm militants yi dañ leen di mobiliser les services publics sont mobilisés la police et puis zone yi ñuy dem demoon nañ fa te pourtant ci moment yi ñuy waxtaan ak askan wi du ñu leen wax ni liñ leen digoon li tax jotuñ cee def nangam ak <coughs> nangam li fii ak fii la sooxe et je pense que quand on respecte un peuple dañu war tout le temps di wax ni ah lii def naa ko def ma parce que gàllankoor nangam ak nangam laa ci am lu tolok 100 millions dinañ ko ci dépenser bo xolé les frais d'hôtel le gasoil etc etc nga xol yooyu yëpp loolu yaakaaroon nañ yaakaaroon na li ñuy woowee tey entrepreneuriat rapide mënon nako ko dimbali ay ndaw Casamance les victimes des mines dimbali ay ndaw yi nga xamante ne ñu ngi Touba exode rural bi yatuna donc je pense que war nañu mën a am yenen yenen gis-gis yu gën dégg nañ sa gis-gis kon moom jàpp na ni meeting la monsieur le ministre dina ci dik Bouba <coughs> waaw mais mais en man man damay jël.